aca yëpp su gën a baax gën a cool si DJ Jano l'international en live and direct sur la meilleure des télé en live and direct sur la meilleure des sites internet Leral TV Leral point net mu gën a baax gën a cool voilà ñu am plaisir am contentement ñëwaat ak yéen dans votre émission Leral hip hop émission moo ne bon on s'est fait un peu xaw nañ dugg ci tunnel nekk ci ay affaire mais voilà nekkoon ci ay bagages nekkoon ci ay job bëgg lépp bu ñu sottee rek après mu gën a cool si yéen gën a naaj si yéen ci kaw loolu nag voilà pour ñu gënaat marqué comeback bi et tout et tout et tout dañoo indi invité invité boo xam ne voilà elle n'est plus à présenter niveau national comme niveau international mu génne album bu nice album bu doy waar donc voilà ñu war a waxtaan ci album bi wala waxtaan ci kaan bi wala waxtaan ci sa carrière et les aussi yi nga xam te voilà mi koy mi ngi koy waajal dans l'avenir dugg laa nuyu naa la yaa ngi en live en direct mu baax maa ngi lay fay DJ di nuyu internet bu leeral TV di nuyu Sénégal yëpp maa ngi nuyu sama yaay muy sama sëriñ di nuyu sama fans yëpp nuyu sama staff acca bismillah. acca loolu am na solo mi noonu doomu Kaolack la bu normal bu nuyoo mu nuyu waa Kaolack donc mu ngi nuyu yaay mooy nuyuwaale suñu yaay bu baax ndax yaay laay moom suñu laay la ñun suñu yaay la ñun ñëpp donc maman ñu ngi lay bëggee bu baax di la di la di la siyaar di nuyu waa Kaolack yëpp laay comme ni ko Sénégal yëpp xamee nekk ku ñuy présenté. donc nekk nga koo xamante ni voilà ku ku am baat nga ku am image nga ci ci ci ci réew mi ñu lay baay xel ci lu bari donc say produit say œuvre gars yi di ko yaa xam tey gis mais balaa ñu ñëw ci loolu am na booy boo xamante ni tey mi ngi soog a tey mën naa ne kaan bi lay soog a xam du Dickoulaay wala si la ko soog a découvrir tey kooku de manière ramassée de manière très brève en une minute boo ko doon wax carrément kan mooy bu Dickoulaay loo koy wax pour mën a xam carrément kan mooy jëmm ji toog. waaw bu Dickoulaay c'est un artiste rappeur qui fait le rap autrement nag. c'est c'est un chroniqueur en plus qui parle d'actualité parce que euh, euh, maam taarixu réew mi daf ñu ñor xibaar daf ñu ñor moo tax li ñuy def ñu boole ci loo xam ne gars yi xamewuñ ko woon ci hip hop donc euh, yow muy soog a gis Boutikou Laye xamal ne Boutikou Laye c'est un rappeur boo xam ne dafa ñëw di créer leneen loo xam ne amu fi woon te lu original ba pare lu sénégalais quoi donc euh, on fait le rap autrement mais aussi li ñu ñor rek mooy wax li nga xam ne euh, jëriñu lu dul luy jëmmal réew mi ak lu koy pousse ca kanam. loolu am na am na solo. comme je te rek. aduna ñit boo nekk ci benn affaire nga ciy liggéey li ma sa jur rek ku yokk xam nga ku wàññeeku xam nga. Mm-hmm. tey depuis nga dugg ci musique bi dugg ci ci ci aar ba léegi en yaa ngi yaa yaa ngi ciy avancé de pas à pas parce que tey mhm. yàlla dimbal na la y' a beaucoup d' artistes yoo ñu ngi ci Sénégal ñu ngi def dara te pourtant bu ñu génnee du ñu leen ràññee te yow ràññee nañ la. Mhm. est ce que ci kaw ràññee boobu noonu noonu gars ràññee la est ce balaa ñu dugg est yow l'art te pay carré est ce que art ngi lay fay avant ñuy dugg carrément ci ci waxu kaan bi. waaw ñu ngi sant yàlla euh, dañu ñëw in suñu yëfu bopp euh, yàlla muy dara teewul def sénégalais gis seen bopp ñiy liggéey ci réew gis seen bopp moo waral tey aujourd'hui ñu am ay projet yoo xam ne euh, yàlla def na mu ngi ñu koy liggéey euh, ak ay partenaires yoo xam ne yu bari dañuy liggéey ci yenn business yi ak yenn partenaires yoo xam ne peut-être seen liggéeyu bopp la ñu soxla ci en fait visibilité ànd ci ak artiste bi quoi moo waral ñu liggéey ak pas mal de ministères pas mal de ONG ak yenn branches yi nga xam ne par exemple yenn société anonyme yoo xam ne c'est pour faire la publicité quoi donc dañu gis ne li ñuy def ni c'est original Sénégal yi bëgg nañ ko yàlla suñu boom def na am nañ ci suñu gagne de pain ñu ngi liggéey donc alhamdulilah tey encouragé képp koo xam ne yaa ngi def nga fexe jël li nga moom valoriser ko mën nga ci am gagne c'est ça loolu am na solo léegi bon pour dugg si dans nekk ci ci ci période kaan raison boo gisee ni ma solo nga xam ne dañoo ci kaan mais comme xam nañ ne ne. Mm-hmm. tout le temps yaa ngi ci version bi ndax version bi mm-hmm. ne laa rek naan Sénégal. <laughs> moo tey nga ne xam naa nag moom da koy bàyyi ak man ma nangul la ko lool donc par rapport ak tey kaan bi pourquoi à chaque fois laay lépp lu muy def. lépp lu mën def bu ñu duggee ci période CAN surtout bu Sénégal war a football Sénégal qualifié moo xam muy CAN moo xam muy coupe du monde laay day bàyyi lépp focus carrément ci ci ci ci Lions yi. Euh, su actualité amee mu nekk lenn lu dul football da nga ciy gis laay en fait ñu suñu patriotisme moom moo ñu moom moo ñu def parce que tey ñu ngi ci projet boo xam ne ça pèse lourd amuñu ci benn accompagnement benn bi mooy je pense que suñu. Euh, def ne ko en deux mille dix neuf ne mille dix huit moo jiitu deux mille dix huit deux mille dix neuf coupe du monde ak puis quatrième édition comme xam nga suñu ay propres moyens lay doon bàyyi suñu temps suñu lépp pour le Sénégal donc ce qui monte que ni ñun en fait réew mi ñu nekk daf ñoo ñor na xamuñu leneen lu dul réew mi kon donc ñun avec l' yu ou sans l' appui de quiconque dans ce pays la ñun dañuy représenter suñu pays muy fii muy feneen fu mën a nekk te lii laay di def ak équipe ci kan bi sénégalais yi ñoo ko laaj c'est à la demande des sénégalais moo tax tey même bu fekkente li may wax gars yi teguñ pion pousse ñun ñu dajaloo waxtaan suñu biir génne lu ñu am pour jox loolu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ñu def. comment se fait-il tey bon je m'adresse à la fédération sénégalaise ah ñoom laay waxal hmm. comment se fait-il ñu nekk ci période CAN ñëpp naan kaan ñu gis ku ne di dem influenceurs yi fii les faux xeetu journalistes yi fii am ñoo xam sa duñu ay journaliste c'est des entre guillemets des influenceurs yoo xam ne peut-être influenceurs ñu kenn dul seen bopp ak seen ak ak seen followers mm. mais amuñu benn influence mm. ñoo ñu gisee àlakaan alors que ne yow am nga beneen taxawaay bu gën a doy waar maanaam bu gën a am solo boobu noonu lan moo waral sa diggante yow ak fédération ba tey gisuñu la tey Côte d'Ivoire je pense que yaa euh, ñaari mbir la man awma problème dem Côte d'Ivoire parce que yàlla suñu borom suturaal na ma loo xam ne tey su ma décision damay dem jël sama billet d'avion dem Côte d'Ivoire foo xam ne man maa koy fay ba pare seetaan kan sénégal yi lion yi jaral nañ ma ko mais li may def su ma demee li may def du am sénégalais duñ ko seetaan est que tu as bien compris te aussi aw ma doole pour équipe bi may àndal yëpp ma fayal leen billet avion ñu dem kaan di ko seetaan bu ñu paree di def li nga xam ne après dañ ko jox sénégalais les chroniques donc on est obligé de rester pour cela dañu bi mooy je pense troisième édition yoo xam ne bind nañ la fédération pour ñu accompagner ñaari mbir moo ci nekk soit danoo xeeb lu ñu def soit laay moo naqaree dimbale. parce que tey aujourd'hui si on est dans un pays boo xam ne il faut nga féete ak man pour ma mën a dimbale la kooku doo dimbale laay te man du man la ñuy dimbale mais le peuple sénégalais c'est à la demande des sénégalais est-ce que t'as bien compris. si si tey aujourd'hui réalité les réalités mooy sa waay foog nga nekk ci sama wet pour li ngay li ngay def ma ñam ci dara quoi est-ce que t'as bien compris. nekkuma ci wetu ma sàmm nekkuma ci wetu ma sàmm wetu ma demb je suis avec le peuple parce que ñoom ñoo ma def du kenn. est-ce que t'as bien compris donc aujourd'hui li ñu mënoon rek mooy tey lii sénégale yi ñoo koy laaj tey booy bind c'est pas à moi bu leen ma dimbalee sama staff doxewul noonu lii c'est à la demande des sénégalais waa lii mooy vue lii mooy li commentaires kon donc lu peuple en a besoin est-ce que comprendre dañu bëgg ngeen jàppale leen pour à ce ñu mën di am business yi parce que tu vois yenn saa yi doomu aadama yi ci commentaire des gens te di que lii dafa extraordinaire moo na gën a high yàlla sunu borom moo yemale foofu sunu poche. moo tax ñu bëggoon la fédération sénégalaise ki loxo. mais nag t'inquiète avec ou sans eux incha allahu rabbi bu fekkante ne téléphone sax la ñuy am ak sagaru studio di ko jox les sénégalais yi vraiment c'est xol boobu ak ñaan boobu ñuy ñaanal rek incha allahu taala bokk na ci lii chaque jour ak compétition mu am quoi. Mm. est-ce que maanaam tey loolu noonu jotul sénégalais yi gën a xam comprendre carrément idéologiquement laay taxawaay bi mu am si ñoom. ban taxawaay la am si sénégalais diggante sénégalais ak moom. waaw man je suis un boo xam ne ku naqaree xam laa ci sama liggéey rek nga may fekk est-ce que t'as bien compris du génn ci lu ñàkk fayda quand les sénégalais me voient c'est à travers sama liggéey est-ce que t'as bien compris on est dans pays boo xam ne entertainment dafa bokk ci liy doxal business yi alors que laay li mu gëm ak son staff c'est de travailler bien bosser li nu am ni dara may ñu ko jëlul liggéeyam on est ci fu mu gën a fekk fi de mais yàlla suñu borom bi dara teewul teew ñu te suñu porox ndollu gëm ko def la original ba sénégalais aujourd'hui ràññee ñu quoi mais par exemple tey euh, li ngay wax noonu il va falloir nga dugg ci ay business pour sénégalais yi mën la xam parce que tout le temps tout le temps takk rajo yi alors que laay li mu gëm ak son staff c'est de travailler constamment ci liggéey boo xam ne jëriñ dul askan wi doo ñu gis si lu ñàkk fayda donc nag kii xam en fait tey suñu liggéey mooy ki ñuy déglu attentivement xam ne ñun defuñu lu dul luy xam ne la buy jëm ci moom. di jugee ci ñun te bi nga xam ne bokk na ci lii teg euh, pas ci au développement de ce pays là. parlant de laay ces vidéos que ça soit la CAN la coupe du monde j'en passe te à chaque fois tey vidéo bu nekk da ngay jël mettre en exergue le ou les jours yi nga xam ne def nañ en fait ils ont fait un match. Mm-hmm. même doo bàyyi entraîneur doo bàyyi kenn képp koo xam si match def nga impact. et parfois du ñàkk say vidéo dina am jour boo xam te tudd nga ko moo xam mu nekk Sadio Mané ku nekk ça dépend kenn ku nekk rek. li ngay wane ci marché bi tey kooku bu saanee vidéo bi dina am envie jàkkaarloo wala am envie am am ak yow contact. Mhm. te loolu fédération bi ñoo ko def est-ce que parfois dina nga am yenn link yooyu noonu match jeex nga def vidéo après moom ay feedback entre yow ak les joueurs ou les joueurs. waaw am na ñoo xam ne xamanteeg naa ñoom directement ci kaw li may def parce que man li may def dafa am humour te joueurs yi parfois dañuy toñote seen biir quand je fais benn affaire boo xam ne damay mbalak Gana Gueye alors que Cheikhou Kouyaté ku yab Gana Gueye la chaque jour da koy wax est-ce que t'as bien compris kon am nañ feedback yooyu quoi ci ci ci les lion quoi mooy li may wax euh, ñun xeebuñu lu ñuy def Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne dafa am réalité bi et que ñun gis nañ réalité bi tout le monde peut avoir par exemple yenn euh, gars yi mën nañ am accès ci ci les lions ci lu yomb au moment où les lions nekk en traitement Bouticola et son staff ñu ngi feneen di liggéeyal keneen parce que dañoo nekk seen liggéey mais si la compétition démarre Bouticola day arrêté lépp ñëw ànd rek compétition pour dem parce que li ñuy liggéey nii c'est pour la nation est-ce que je me fais comprendre am ñu lions yi war a fubal mbala war ñu dem match euh, je sais pas d'entraînement ñu taal suñu business dem fekk leen fa nekk saafoon teg ñoom mais duñu jaral bàyyi suñu liggéey parce que ñoom dañoo nekk ci benn liggéey boo xam ne tey dañ leen ci oo mais bu dara desul compétition bi taxaw dañuy arrêté ñun li ñuy def faire face à la nation pour di leen jox li nga xam dañ ko soxla quoi lépp ça vient parce que li ñuy def c'est original loolu am na solo t'as bien compris bëgguñu forcer dara quoi ñun duñu forcer dara. waaw waaw nu lu ñu doon parce qu'on sa dit que ni nii les Sénégalais en fait am na bët bu ñu xoolee quoi te ñun on ne déçoit jamais. on veut pas par exemple dugg ci yenn business yoo xam ne peut-être gars yi dinaan non en fait lii du woon du woon ñoom quoi wala du woon laay quoi. noonu rek la demee quoi mais sinon am nañ link bi suñu biir ñenn jours yi pas ñëpp nag quoi tuuti tuuti yoo xam ne parfois ñu wax te li ko waral mooy boutique laay bi ñu def. est-ce ñu ngi yëg say affaire ñu ngi koy yëg wala carrément bon yow ñi ñi ñi ngi ciy jàpp. waaw xëy na euh, soxlawuñ ci ñun loolu nga nga partagé parce que euh, joueur nga euh, la nation te suit bu laayoo defee dara nga yëg sa bopp partagé ko. pour à ce que say flower mën cee jot quoi loolu rek lañ soxla du leen loolu am na am na am na am na solo comme ni nga ko waxee comme koloon nañ débat wu la CAN laay comme ni ñu ko xamee donc à un moment donné ñu gis laay ci beneen facette laay ci loo xam ne mën naa ne la majeure partie des sénégalais xaaruñu ko wala peut-être ñi nga xam ne ñi ngi la gis de xamuñu woon ni laay mën na lii laay nga génne album album bu doy waar mu tudd Kakatar mm-hmm. déjà balaa ñuy wax carrément ci l'album bi et son contenu un album de pourquoi nga choisir moment bi waaw bi ma débuté sama carrière xaw ne moon ko laay dina ma dab parce que laay en fait concept la mais c'est l'artiste moo tudd laay dama débuté ak Kaolack ci groupe bu ñuy wax J85 ñu bokk koñ ma leen di nuyu de passage ay gars yu bien à un moment donné ma dem carrière slow doxaat dajeeg un boo xam ne moom nee naa li ñu boole man ak moom daf see si dafa romb dafa romb fraternité mooy Silva ñu créé SL 100 degré di rap rap bi gën a dëgër bi gën a xuut bi gën a tàng parce que ku xam kaw la xam ko ci loo xam ne hardcore la cat ba cat. man ñi may suivre nii suñu suñu leen joxoon samay son yu njëkk ya dinañ ko déglu cat ba cat ne kii du laay parce que style bi ma doon defee la ko à un moment hip hop bi commencé changer ay dégg de génération en génération. yàlla suñu borom mi dara tëwul ne man ci dinaa bokk ci génération bii nga xam ne fës la donte génération bu njëkk bee côtoyé naa leen boutique am suñu buntu kër man dama yàgg bëgg wax sama xalaat ci réew mi ma ne à partir de la boutique laay commencé di wax sama xalaat man sama point de vie selon l'actualité étant un rappeur ma nekk ci boutique bi di jaay su xew-xew amee Sénégal damay teg sama téléphone teg sama instrumental commencé di ko rappé di def samay riim di ci wax. su ma paree posté ko je vois que yéen dangeen ko bëgg les journalistes les télévisions yenn site yi gars yi rependre ko naan le rappeur boutiquier ñi naan la boutiquier rappeur xamaguñ nu ma tudd mais may def chaque jour wala chaque deux jour ma wax ci actualité bi ñu dem ba dégg ci li may rap parfois ma wax laay ñu xam ne laay laa tudd ñu naan laay la boutiquier ñu naan boutiku laay les sénégalais gis ne vidéo yi mi ngi viral te bu ñu koy wër dañ naan laay la boutiquier wala boutiku mu jël tur boobu ñu ma jox. parce que bëgguma ko changer moo gën a yomb ci ñu gis ma looloo indi butikulaay butikulaay bi di dox ba à un moment donné ma xam ne sénégalais soxla nañ sama album li nga xam ne débuté woon naa ko laataa butikulaay ma delloo si ko jox ko ñi nga xam ne autant dañu ma doon déglu ba pare mise à jour ko fexe ñi nga xam ne dañuy suivre si butikulaay buggaale ko loolu moo waral Kakatar bi. loolu am na am na solo. parlant de l'album qui est Kakatar tout le monde sait que laay génne album yombul. Mhm. financièrement ça demande des moyens ça demande un coût. Mhm. like kan moo kan moo kan moo album bi boo ko xoolee déjà boo xoolee étiquette yi xool affaire yi xool bagage nga xam li du yëfu camo. Mhm. like kan moo ne sa ginnaaw yan ñoo jàpp ci projet bi carrément balaa ñuy wax ci album bi le contenu lan nga fan jaar tey ba teg album bi parce que album bi nga génnee ku moom dina si ñëwaat pour comment va faire pour avoir l'album et tout muy génn tu as mis des moyens. financièrement parlant yombul ci yow. Mhm. tey voilà loolu nu mu lu mu nu mu nu mu demee. waaw Butikulaay moom moo def album bi. Butikulaay moom moo def album. bi quand je parle de Butikulaay je parle de Butikulaay son staff. ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom démb ba tey dañu jàpp ci liggéey Butikulaay tey je parle de Samu ak Kaolack Zik Buzz Music. Samu. dañ ko débuté di def ay freestyle une di ko jox sénégalais yi di ci jël suñu temps ak suñu ñàkk di ko ci def gisuñu ku ñu jàppale mais sénégalais yi bëgg nañ like nañ ci parle de Napoléon workshop music chronique une minute deux minutes surtout su la CAN débuté ko ak moom di ci liggéey kenn jàppale wuñu sénégalais yi di pousse muy dem staff bi di ci dox subaa ngoon guddeeg bëccëg yàlla mi dara tëwul dem ñu dem ba loolu tey aujourd'hui ñii li ma la wax sànq yenn partenaires yi bëgg ko yenn sponsors yi bëgg ko du ñu oo ñu liggéey ak ñoom ñu def seen xaalis xaalis boobu moo jur lii kon donc du mais ña ko débuté woon. ok. Omzo Mythics. Sewdis DJ. ay gars yoo xam ne chaque jour ko jëfee bi ñu kenn xamutee dañ doon teg seen ay pieds ay pas pour que tey li ñu def ni am njariñ bi mu amee njariñ lam ñu jural. ci koom lañ jël xëpp ko ci kàkkataar lañ jël benn partie xëpp ci kàkkataar pour mun a am album bi kon donc ñun ñoom ñoo liggéey album bi ñoom ñooy ñooy ñooy les producteurs quoi. l'album s'appelle Kakatar un album de neuf titres album boo xam ni son boo si déglu rek je pense que ni mën na nekk hit mën na nekk sound boo xamante ni ça peut vendre beaucoup de choses. Mm-hmm. album de neuf titres. Mm-hmm. tey ci neuf titres yi man son boo si tànn na ko mën naa bon am naa ci ay ay ay mais pour ñu wax ci son yi benn par benn dina xaw compliqué. Mhm. ndax mënuñu wax ci son yëpp. Mhm. mais yaa leen njaboote. Mhm. yow yaa ko yaa ko yaa yaa ko liggéey. mënuñu ci dara loo ci xamul. te ci njaboot gi du ñaax am njaboot goo xam ne moo la gën a neex. ban titre nga jàpp ni carrément yow titre bii sa son la ndax y' a beaucoup de titres neuf titres benn bu nekk mun naa ko lim voilà mi ngi noonu am nañ titre un Kakatar baisse pas titre numéro deux Kii laay la Nobel featuring Rema Yaakaar ah track numéro cinq ah Limataaru featuring Bril Fight for ah track numéro six Destination Sénégal track numéro sept Agression track numéro huit Caloof bala track numéro neuf. Mm-hmm. ñëpp yaa leen njaboot. Mm-hmm. mais si njaboot gi am nga si ñoo gën a bëgg wala boo gën a bëgg. waaw bëgg naa lépp ah. mais aussi yëg-yëg yi du doon benn day am son yooyu gën a yëg quoi. Euh, yaakaar dama ko yëg loolu quoi. sawnu yaakaar yaakaar waaw parce que yaakaar je parle de doomu aadama nga xam ne dañoo nekk ci réew mi liggéey fi bëgg fee tekkee te mbir yi mënul sotti ba mu jar leen ñu jël gaal gi ñuy di ci faatu donc euh, yaakaar googu doomu aadama yi am ci réew mi dafa am ñu ko porté ginnaaw nag koo yaakaar yàlla yaakaar. waaye am na yenn yoo xam ne c'est-à-dire suñu la joxee dénk la war nga cee was lu àq ba surtout ñi nga xam ne tey aujourd'hui ñooy yeewoo ci réew ma bëgg ko te bu ñu sañoon duñ ko génn bëgg fa liggéey tekkee fa lu bare bare bañ tas si ñoom moo demee bu demee ba ay doomu aadama yoo xam ne xam naa leen depuis ñoo xam ne saa yu wan waxee waxu voyage ak dañu naan ah, sama waaye ma loolu mosu nekk sama bopp quoi man fii laa nekk génn gi métti na affaire yooyu tey boo laaj ñu naan la ñenn ñi ci mujj faatu saa vraiment c'est c'est c'est désespérant yes am na solo donc yaakaar googu noonu. il va falloir que ñii ñu ngi jeexal ñeen ñu ngi ñëw mais képp ku mën a ñëw fexeel nga yaakaaru sénégalais yi bañ a tas quoi. am na solo. parce que bu ñu demee ba aujourd'hui fi ñu nekk nii ay kër nit di yeewu di am problème mu lekk yaa problème au senegal te pourtant ñu ngi góor góorlu vrai du duma ko natt ci kenn dama koy xool ci sama bopp. parce que aujourd'hui maa ngi góorgóorlu ci li ma nekk def ma lu ñàkk fayda sàccu ma jëlu ma yëfu kenn kenn geru ma maa ngi góor góorgóorlu li ma ca mos tuut yéene ko sama yaay bi ma jur ak doomu aadama yi ma àndal te ba léegi léegi léegi léegi bëgg-bëgg yi su fekkonte ne damay découragé rek bàyyi naa wallahi taalaay su doon damay découragé tey tey tey tey bàyyi naa parce que aujourd'hui age bi ma am ci yaakaar gi ma foogoon foogoon naa ne su ma fa tollee dem yàlla suñu boobu mu bàyyi sama bakkan may dund foog naa sama lépp bandang surtout sama waajur bu jigéen bi nga xam ne tey aujourd'hui moom laa dese ak li ma ko yéene ci àdduna su ma demee ba tey aujourd'hui may xalaat ne tey lii laa bëggoon ci moom aw ma ko rek su ma doon désespéré rek kon Sénégal dutuñ ma gis ci écran yi quoi mais nag ñu xam ne dëkk bi ñu nekk dafa doy waar te yàlla suñu borom mooy natt euh, ci doomu aadama di ci def ay mbir mais aussi ñenn dañu am responsabilité surtout l' état surtout ñuy dénk réew mi dañu am responsabilité bu rëy par rapport à ça parce quand tu ñi nga xam ne aujourd'hui ñoom lañ jiital boo xoolee seen kanam ak seen ginnaaw say lépp bandang mais ñi nga xam ne ñu nekk ci suuf mooy ñi may wax ñun ngay romb ci trotoire yi ñun ñooy xëy di jaay fëgg jaay ñu ñoo xëy di dugg ci lii te en retour bëgguñu lu dul dimbali ñu ñu nekkal ak suñu jur nga liggéey ba ngoon jot dugg sa biir kër xam ne fii kenn lekku fi loolu dafa metti tey bëri na ñoo xam ne aujourd'hui ñu ngi dugg ci ay business du dara pression sociale la. c'est vrai génn tey ba ci agression bi may wax neuvième mo neuvième neuvième morceau bi. Mm-hmm. parce que man noonu laa liggéey suma album. liggéey naa ci yaakaar ba pare ñëwaat na leen ne baisse pas les bras. baisse pas les boobu man maa di wax na leen ne baisse pas les il ne faut jamais baisser les bras. il faut travailler parce que sama bopp ci laan di natt quoi. kenn amagul ci ñun li ñu bëgg ñu ngi liggéey amaguñu kër. billaahul kitaab bi amaguñu kër. dañ ko am incha allah. moi j'ai fait des années. des années de travail fal aw ma oto bu ma dawal sénégalais yi ñu xom ba comprendre ba léegi que ne dañuy génn dem di luye oto mbala ñu nuy abal oto est-ce que baax na wax mooy li ma la wax rek ñun ñu ngi sant yàlla parce que aujourd'hui tey bu ñu sénégalais yi di xool ñu nekk ci oto di ko dawal te way jur yi ñuy jur sonn ci ñun mënuñ ko am loolu du ñun moo tax ban ci njëkk am dañ koo jagleel suñu way jur. waaw ñun ñaanuñ yàlla toog ci oto di ko dawal suñu way jur sa waaw ñun ñu ngi dox ba tey tey am yaakaar gëm-gëm dinañ liggéey ci réew mi tekk ci réew mi ba dawal ko ba koy maye incha allahu taala. donc moo tax ma ne jeunesse bi na il ne faut jamais baisser les bras. so noonu la demee. est-ce que comprendre nga donc euh, ñu ñu dénk ñu ñu jiite nan ñuy bàyyi xel daal te xam ne ay nit lañ ci réew mi ay nit lañ ci réew mi yenn saa yi ñu ëpp la ñàng bala ñu ñàkk la ko ba ñu ëpp mais yàlla suñu borom mu boole njaboote lépp parce que li ñu la dénk tey suba di ko lekk saa borom. kon donc lu mu neex neex neex neex neex bàyyil xel ñi la dénk te xam ne un jour ou l'autre à fi nekk ak privilège boo mën a am président Macky Sall jeexal na day dem keneen ay ñëw ana Léopold Senghor. ana ñu. am na le président li mu amoon ci ci ci protocole kenn xamu nu mu toll. aujourd'hui pour nga gis ko doo fay cent franc ak Seydina Ahmed tey bu ñu la falee ngay romb ñu arrêté lépp. ay doomu aadama ci ginnaaw ñi feebar ñu dem bloc péage bi yëpp yow sur le président yaay jàll yàlla sunu borom moo la ko jox mi billaahi wallaahi boo fogee ne tey danga ñuy foyee bu ëllëgee mu baax dangay ngay nax sa bopp quoi kon ku ñu xaali tali bi rek war nga xool doomu adama yi taxaw nga di leen romb ci passerelle xam ne ñii ñoo ma tax a jug ñii daa war a liggéeyal kon naa ci sàmm saa digganteeg saa borom ba bu ëllëgee saa yu lu bare bare duma ko ci réccu quoi. ca élection lañ jëm. donc yàlla ñu yàlla suñu borom nital yoon bi ñun Sénégal parce que am na yoo xam ne jaar na fa bëggatuñ koo gis quoi yes am solo macha allah c'est des mots émouvants venant de lui des mots auxquels moi personnellement le connaissant voilà je m'attendais pas a parlé avec le cœur voilà c'est c'est c'est l'artiste en même temps qui parle voilà nit koo xam dafa bëgg réewam bëgg ñi nekkal bëgg yaayam bëgg ay xaritam kenn ku nekk su ñoom mu am voilà moom envie boobu dafa am solo voilà je veux pas trop voilà éveiller l'émotion parce que voilà dugal nga ma ci dimension boo xam ne sax voilà je m'attendais pas à ça pour de vrai mais gannaaw anyway comme ni ko par rapport ak l'album Kakatar on a vu des featuring pourquoi le choix des featuring featuring ak Rema Drill Fight Four j'en passe le choix de ces personnes là alors que ni laay bon du ne ñooñu mënoon nga jël featuring ak ñeneen ñeen mais pourquoi nga def focus si ñooñu nan la relation bi demee wala yow yaa wala bon loo rek. waaw vraiment dafa doon artiste boo xam ne. peut-être euh, tey eggagul fenn fii ci niveau de popularité mais talent bi mu am kenn du ko naatable elle chante bien est-ce que t'as te mu doon artiste boo xam ne man gëm naa ni dafay toj réew mi. incha allah te ñu sentir aussi baatam gis ne lu sénégalais la lu saf ceebu jën la ñu jëli ko indi ko def ko boole ko ci li ñuy def. bril featuring bi ci studio bi la juddoo. parce que nitu kese la. Brad Fight Fow. il faut nga jege doomu aadama pour xam kan la ko dëgg nitu kese la. Baye Fall romb na Baye Fall. Baye Fall la ni mu doon liggéey album bi tu sens que ni moom moo la ko gën a bëgg. dëgg la lu day def ba mu kii nga yaakaar ne saa bi moo fi nekk mu ne non mën naa am lu gën a nice. nga xëy suba ñëw mun la kaay jaaral li laa mu du def. nga xool carrément xam ne kii da ngay dem tëri yow bi moom muy fanaan ci studio bi. pour di liggéey moo tax li ngay dégg ci ay it mu nekk Bril Fight foofu bari parce qu'il travaille avec le que t'as bien compris. yëg-yëg bi mu am ci album bi moom laa yëg ci moom ba ne ko lii ko def. noonu la demee daal na solo. waaw te yàlla si ba mu def ñu def ko mu nice. acca am na solo moom moo koy wax nee bu dee mën nga bëgg a yokkal sa tur Fight foo ko ca salué au passage. boo ko mm-hmm. nuyu di bëggee Mahmoud son manager beaucoup de la voir lui voilà Bril album bi nice am na solo. par rapport ak l'album toujours ah donc mën temps di mais parlons aussi de l'album tu es de Kaolack ñëpp xam nañ ne peut-être de Kaolack tu es Laye international national tey album bi buñ ñaan appui yow la bu ñaan jàpp au moins Kaolack ngay représenté. Hmm. te Kaolack am na ku fa nekk ku fa yàlla teg comme maire en l'occurrence Serigne Boub est-ce que moom carrément voilà mi ngi teg loxo ci affaire yi. <laughs> ndax tamit Kaolack doo ko doo doo doo ko ndaw Kaolack. Eh tey bu ñu lim artiste. deux artistes yi gën a siiw ci ci ci ci Kaolack. Mm-hmm. boo nekkul P yaay nekk deux est que nekkoo P sax <laughs> pour ne pas que bu ma ay naara P wala ah, yeneen que bu nekkoon <laughs> number one tey moom lañ teg mu nekk moom mu yor drapeau Kaolack. Mm-hmm. tey war a tey propulser képp koo xam ne jeune nga artiste nga nga def lu rafet mu war si mën jàpp est-ce que carrément Serigne Mboup mi ngi mi mi ngi teg loxo ci affaire yi. waaw maa ngi koy nuyu de passage muy sama mère di sama kilifa. donc euh, man butiwu laay CCM bi CCM bi man moo ma sonal <laughs> donc euh, laataa muy nekk maire euh, woo nañu ñu am ci projet yoo xam ne liggéey nañ ci butigu CCBM ak ci wàllum yoonu wut maire bi quoi donc man aussi bokk naa ci ñi xam ne teg nañ ci loxo pour à ce que ñu mën a am beneen maire boo xam ne qui n'a rien à voir ak si politique yi fi nekkoon wax dëgg fa yàlla donc liggéey nañ ci yàlla sunu borom def mi dara teewul jox ko mu nekk maire bi. Euh, ñu koy ñaanale yàlla yàlla woyofal yéen bi parce que Kaolack waaye ci loolu rek lañ koy xaar euh, sëriñ monsieur le maire ñun ay saalum saalum lañ amuñu lu dul saalum te dañuy dugg saalum di génn di am ay feedback yaakaar googu ñu am ba porte ko teg ko ci sa jëmm ji ba nga yor maire bi ñu la ciy xaar ci ay résultats te gëm nañ dinañ ko def ndax ak li ak ab liggéeykat lañ jël jox ko maire bi joxuñ ko un politicien te loolu aussi ñu ngi ko ciy xaar. Euh, bi may def sama album nag comme moom li may wax la sama kilifa la daa ñu yëgoo ci yenn yi mais à un moment donné dafa toll ci wut réew mi te boo tollee ci wut réew mi peut-être yaa ngi soxla loo xam ne tey aujourd'hui diis na diisaay goo xam ne jot gu bari dootu ko am mais chaque fois man doon naay danaa koy envoyé ay ay messages wala parfois mu jëm ko mais damay jàpp ne xëy na ci li mu nekk moo xat rek quoi ndax moom saa yu ma soxla soxlawaan day jël téléphone am te daa koy wuyu à tout moment. waaye à un moment bi moo nekkee sama projet amoon naa jafe-jafe jot ko mais euh, mujj naa jot euh, premier adjoint expliqué ko ne ko jotuma sëriñ mais comme moom suñu kilifa la te ñu nekk Kaolack di génne un album def lancé euh, benn bi à Dakar di lancer benn bi à Kaolack bëggoon nañ ko yëgal mais mënuñ ko fexe ba jot. mais après moom expliqué nañu ne sëriñ moom mu ci àll bi effectivement mu ci àll bi lu uti yoon yi d' loolu comprendre nañ ko moom mu tawatoon donc yàlla na yàlla suñu borom wëral cër yi. donc voilà lii waroon rek mooy ñu yëg ko rek quoi c'est important ñun yëg rek mooy li ma wax rek ñun moom yëgal rek. parce que li ma la wax dafa waaye saa yi ñun dunu ñun ku du woo téléphone jël ñu parce que tàggatuñu wala ñu yaree ñu ci tàllal ñu ay loxo duñu ñaan mais dañuy bëgg chaque jour di yëgal ki nu war a yëgal parce que suñ ko yëgalul ëllëg bu toogee ni ah yëguma ko woon. faute mën na jóge ci ñun donc suñ lay yëgal di la yëgal jotuñu la yenn saa yi ñu def ay raccourci c' est juste pour xamal ko rek ne ko ci lii lañ nekkoon am na solo loolu rek la loolu am na solo je pense que c' est bon à savoir comme leeral hip hop lañ wax ñu nekk ci leeral TV lépp daa war a leer te je pense que yaa ngi ko leer de la plus belle des manières mm-hmm. parlons aussi toujours par rapport ak euh, l' album bien avant la sortie de l' jot nañ ci yooyu bëy parce que boo ko man damaa sopp te fu ñu laay dugg. jot nañ ci for nañ ci yooyu bëy que ni voilà y fii une fille une femme boo xam tey voilà jotoon nga am benn genre bon problème voilà laay moo jël sama son moo ko estimé moo ko nii dóor la fi porté plainte la après laay defar contre plainte dafa recherche ñu naan du laay bii laay bële la bon defee ko émission ba mu jeex peut te duñ ci leeral nu mu demee situation boobu noonu. waaw man. dama toog rek ñu jox ma indil ma non ñu oo ma téléphone quoi sa boutique waaw dañu am euh, dafa am ku indi fii est-ce que mën nga ñëw man leen suis désolé mais man. du ma waa waa dégg ñoo la bon je pense que mooy ñi nekk cyberan. ah cybercriminalité waaw ñoom je pense ñoom la waaw. Ah. waaw euh, piratage quoi. Ah. waaw ma ne ma dafa am ku indi fii est-ce que mën nga ñëw man leen je suis vraiment désolé man pour ma dem wuy ji foog ma jot. li ñu woowee convocation ñu ne ma ok d' accord léegi fan nga nekk ma expliqué leen sama position ñu ne ma dinañ la ko indil bon deux trois jours woon fàtt naa ko sax man pour man booy def ay caméra cachée yi la quoi ñu woo ma ne ma convocation lañ doon indil ma ne ah d' accord ñu ne ma yaa ngi sa kër ma new ma sama kër boobu maag góor ñoo ànd ñu ngi woon euh, dakaar côté Kébé automobile ñu ne la ñuy foofu quoi ndax bi ñu ñëwee si lañ gis góor a góor a leen ñu ñëw expliqué ma ma ne lan la ñu ne ma non garaawul affaire u piratage la quoi bon ma dem ma dem wuy ji ma ne est mën naa ñëw léegi ñu ne ma non ki ko war a def ak dafa bougé quoi nañ bàyyi ba suba après ma dem ba ma demee ñu expliqué ma yaa une fille boo xam ne effectivement dañu jël morceau streamé ko ah mon ki ko def ma butigu laa la dugal quoi et puis kii di butigu laay man rek ngay visé quoi donc ñu xalaat ne man la ñu woo ma bi ñëwee ma xamal leen ne leen du man bon amuñu preuve. mais aussi ki nekk à la source bëgg naa xam kan la parce que bu fekkente ne après ay mbir am na ci daal ay mbir am na ci yoo xam ne dànku man déposé naa contre plainte pour xam exactement kan moo nekk ci suuf quoi xale bu jigéen ne xaw ko mosuma déglu musique am sax boobu laa koy njëkk a déglu sama manager sax moom laa ko njëkk a gis mais aussi bëgg naa xam kan moo nekk à la base quoi ku nekk ci suuf di jël bu tikulaay bi di ci def ay détails yoo xam ne bon tikulaay lépp dañu bëgg mu clean quoi blanc comme waaw bu gisee ne am loo xam ne dugg na ca bokk ci ñun aussi déposé nañ contre plainte dem nañ cyber. par mm-hmm. rapport album am na koo xam ne mi ngi lay seetaan. Mm-hmm. te bëgg jot si album bi. Mm-hmm. bëgg na ko déglu kooku lu muy def. waaw album bi mu ngi ci plateforme yi. donc c'est disponible si dans toutes les donc ki ko bëgg a mën na jaar ci plateforme yi su ko weesoo aussi am nañ mode physique bi donc voilà euh, boo xam ne euh, yii pratiquement bëritul. mais symbole la rek pour que nga ñëw teg loxo artiste bi pour mu dem quoi. parce que laa laa laa euh, liggéey neen album boo xam ne donc damay bañ a. waaw xam nga wax yenn comme gars yi ni ñu égo trip quoi. waaw mais maa fi dàqal album. loolu je confirme. <laughs> non maa fi dàqal album. ça xam nga sama cadreur à la base. si suuf moom rappeur la. Ah. waaw moom maa la koy joxaat ah. maa la koy baaxawaale gratuitement. sama cadreur bi MC la dafa mën rap. non maa album. ça c'est sûr xam nga lu tax. Euh, pour ne pas dire ay détails quoi mais kii di inspiration au Sénégal y keneen ka laay quoi nañu dëgg rek kooku moom féete na boor. d' nañ ñëpp d' accord nañ <laughs> Sénégal d' accord nañ ne inspiration moom laa la. am na solo. très bien technique flow kooku moom lu yàgg la si dañu entraîné doog a ñëw. mbind kenn du ko xaajale ci ñun mais Sénégal bi am ci biir caf ka ceebu jën ki ne ci album moo doy waar. dogguma la ci loolu. Mm-hmm. dafa doy waar. Mm-hmm. mais dafa am ci biir sang ñu li ñuy neex neex neex comme ni ma choisir bés ba les bras. Mm-hmm. yow nga choisir yaakaar keneen am beneen sang am na koo xam ne mën na choisir nobel. xeetu góor yeeg yamar nga xam ne dañuy bëggante ñoom garaaw mën nañ choisir yooyu. mais kii laay la bi la. dafa loolu <laughs> en fait genre kii laay la genre espace nu mu nu vibes yooyu mu parce que laay foofu man bi ma dégloo sang ne titre ba agsi si la dama si gis di gars yi ñu ma rab parce que su ma raboon ñu bari dañu am problème déglu ko parce que su ma raboon rek rabal rappeurs yi te bëgguma woon rabal rappeurs yi rappeurs yi jënduñu album demuñu concert. te bëggoo rabal rappeurs yi non bëgguma rabal rappeurs yi kon je passe à côté mais il fallait ma am ci benn morceau pour montrer à ces ces rappeurs là que ne leen au fait lii sama identité la man la loolu mosul dégg Sénégal la gars yi rap nañ plus de presque 30 ans et quelques 35 ans boo xam ne mosoo ko dégg ci histoire hip maa ñëw inspiré wu ko dem toog ak biir maker bi ni ko saay lii lañuy ñuy def bril mu doon saay saay moom it mën li muy def lool may rap di ko laaj instrument ay instru muy dugal di laaj di ko laaj ay mélodie bu dugal Charles mu dugal basse mu dugal affaire mu dugal ma dajale yëpp nag tënk ko ne ko ah ñu baal ma ci kàddu gi noq ci sabar parce que dafa sénégalais <laughs> bon loolu am na am na solo album bu doy waar voilà ma leen di suggérer à travers l' émission képp koo xam ne leeroon na leen carrément xamoon ndax laay peut-être am na ñoo xam bu ñu gisee laay peut-être dañ koy gis à travers les vidéos qu'il fait au niveau voilà de la CAN ou de la Coupe du Monde si les Lions sont en compétition mais mis à part ça génnoon na album bu doy waar ma bëgg gars dem découvrir ko par rapport ak album bi la promotion les perspectives parlant peut-être ci la promotion on y reviendra mais pour toujours ci ci ci ci perspective yi est-ce que ci titre la ñuy bari neuf titre yi yaa ngi xalaat def ci deux wala trois vidéo wala yoo xam ne wala benn boo xam ne du ñu ko def vidéo pour au ñu xam ñàkk la parce que album noonu lay doxee mais chaque chose à son temps dañu génn ci album bi pousse ñu liggéey parce que en fait euh, affaire yi audiovisuel la quoi son bi lu mu nice nice vidéo moo koy jaay ñu def ko et li ñu neex ci album mooy li ma wax sànq rek esprit reconnaissant bi quoi. on a fait un album boo xam ne tey aujourd'hui tey gars yi bu ñuy publicité dañ naan la Massawa tudde nañ ko mu Demba nangam nangam kërëb kërëb ñun suñu album dañ ko tuddee un gars boo xam ne il est exceptionnel il s'appelle Dj Omay. Dj Omay from Kaolack. la nekk doon jàpp ci suñuy business laataa Sénégal dañu teg bët. mooy loolu mooy reconnaissance. mooy li may wax rek comme album bi waa démb waa démb ñi nga xam ne boobu dara du dara amuñu dara. ataay bi sax bu ñu teg ko problème la ñoo ñoo tëgg album bi kon ñoo ñoo yeyoo tur album bi. macha allah donc Omaay mi nga xam ne yàgg nañ def affaire parce que man dama yàgg yëngu ci affaire sociale quand j'étais ak Kaolack Sénégal xamuñu ma waa Kaolack ñoo xam ne mu bëgg di jàppalante di dimbalante. ay nit def naa ko ak sama staff bi ndox mi ñëwee ak Kaolack ñu dimbali sinistré yi def naa ko ak la pouponnière Lamine Coulibaly de Kaolack les démunis de Koutal distribuer des les enfants ay cadeaux te yoruñ dara mais ni ñu koy defee mooy dañu am benn esprit Omar ñun ko dañoo bëgg dimbale ay doomu aadama loo ko mën a defee mun leen man dinaa leen may son ak lumière complet boo xam ne ay millions lañ ko waroon fey léegi ñu ñu dem promouvoir ko ne dañu bëgg dimbale par exemple li li li li bébé yi nekk bu Poñeer Lamine Coulibaly léegi nag képp ku dugg ci concert da ngay indi loo xam ne moom la bébé bi soxla ñun soxla ñu xaalis ki ñëw indi nutribon ki bébé la ki ndey couche bu ñu paree ak xaalis bi ñu am ñu dajale ko yóbbul leen ko. doomu aadama yi doon jàpp ci business bi. te aujourd'hui ñu ñoo tënk album bi moo tax di Omaay lañ ko tuddee. mu neex ñu trop nag. ñu war ko ngénte incha allahu rabbi ñu nag moom affaire bu doy waar xam naa bu ñu amee temps incha allahu rabbi daañu ko def. donc les sons DJ son Ibou Laye Niga capitaine gars yoo xam ne boobu kenn xamuñu. si seen seen album la donc ci loolu la ñu liggéey quoi mais nag pour la promotion moom na Sénégalais xaar moom album bi moom mën naa album boo xam ne la moom déglu nga ko rek da nga koy dégluwaat. bi pour ne pas parce que bon émission bi tënk nañ ñu xam naa ne sama cadre voilà ba ba léegi mi ngi may mi may naan faal affaire yi fi toll nii fa toll léegi mu yemb mais par rapport ak tey toujours ci ci ci ci album bi te ku génnee album di nga tëgg événement. di nga woote di teg est mi ngi pare pare événement boo xam ne pour mag la que ça soit ou à Kaolack. Sénégal njaay yëpp nañ ñëpp xaar quatorze régions yëpp incha allahu rabbi daañu ñu ak. suñu staff dañuy def Kakatar Tour Kakatar Tour. incha allahu rabbi dinañ ànd ak ay partenaires. wàcc fépp ci Sénégal def ay show yoo xam ne ñi amatoon chance gis Boutique Laye ñu gis ko. tey quels sont voilà tes tes, tes derniers mots voilà last word bi. waaw euh, maa ngi bégam ñëpp nag di encourager encore sama staff parce que ñu sonn lañ ànd ak boutique laay c'est pas facile te aujourd'hui bari na ay doomu aadama yoo xam ne mënuñu ànd ak kudul wayaan parce que ñu ngi xaar en retour tàllal loxo am ci dara ñoom ñu mën cee jot mais ñoom ñu gëm am philosophie boutique laay am. dañ koy wooking dañ koy xas la ci ak diiñ ak ngor am lu nu bëgg parce que chaque jour moo wax benn affaire li ma li may doxee moo nekk ci ñoom suñu objectif yëpp c'est un jour fair partir ci ñi nga xam ne ñooy décider dans ce pays te loolu il faut nga am benn benn benn benn doxee quoi. wax naa leen ko su ngeen bëggee am lu leer fi ngeen koy amee la bonne information aussi fi ngeen koy amee musique bu baax musique bu neex sur la rajo Leral FM mu gën a baax gën a cool c'était DJ Jano j'espère que affaire yemm na ci yéen j'espère que vous avez carrément apprécié l'émission d'ici là maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama cadreur bu ñaawul bi voilà mon ami moo koy ami voilà Mamen bi ma jox ma ko bëggee voilà bëgg naa la baax bul zon bi autant pour moi Pape Neymar bëgg naa la baax. rendez-vous beneen day ak beneen invité su gën a baax gën a cool c'était vous c'était moi mu gën a baax gën a cool make some